bi jóge ci Zos. ji dinaa bëri Boy Sey. Mhm. bëri coow xam nga doon faj meer fa dugg gën a dugg si mer. même saison la benn saison la. Mhm. dañoo ma ne ko nañ ko jël. seen lamp fay nag. waaw àdduna noonu la la. commencé xeewi Tidiane Faye. sant yàlla rek. xam nga tamit xam nga yi yow fa fa nga waroon a neex li dëgg dëgg dëgg dëgg jàpp booy limbaar leen limbaar leen xam nga fa nga waroon a neex leen dëgg. Mhm. Tidiane say lamp fay. waaw gars yi ne xam-xam bi est-ce que léegi mi ngi fi wala doole ji mais Tidiane sa làmp yi ba mu fayee carrément tàkkatul pour Tidiane sax am combat ndeysaan c'est tout un problème lu waraloon loolu Tidiane lan moo waraloon loolu. lu xewoon li ma la jox exemple rek moom mooy. Mhm. xoolal sama catégorie ñi doon bëri man. ñu doon bëri man. Mhm. xoolal ñu doon bëri man mbaa xoolal ñu ma bëreel ba pare. Mhm. nga xool leen ñaat combat yi actuellement ñi ci am combat normal. actuellement doon na diw moo ñàkk combat ndax diw lu tax amul combat danga naan lan la tax làmb mel nii mel. Mhm. man doon laa koy gisee. Mhm. parce que bu dee ay adversaire man maa ëpp adversaire si làmb. Mhm. parce que sama taay la man nekkuma mbër moo xam te ne tey jii nii day rëy ba kenn du ko jël. tey jii nii fu ma taxaw booy dañ may soxla. mbaa ma soxla booy. kon ñàkk mu adversaire n'est-ce pas. amiin ah, te kiiwatoo bëreetoo. non làmb moo demee noonu nag mbër mu ne làmb bëri la bëgg. mbër mu ne bëri la bëgg fi ne tey jii bu boo dem. buñ dee cent personnes. jàppale cinq ñoo fay bëri mbaa dix. lu waral loolu yow pour ah yow. xaw ma làmb la rek laa wax ba tey jii nii li làmb ñi moroon mel mbaa dañu doon mel. Mhm. bu doon mi ngi am bi ngi mel ba léegi kon làmb ji weesu na fi. Mhm. mais xoolal sponsor ni mu doon demee ak léegi. Mhm. nga xam sponsor xaaj yooyu dem nañ. mbër moo xam ne doon bëre petit combat nga bëri cinq combat quatre combat léegi petit combat ku ci bëre benn déwén nga jëm. ñun suñ suñu chance lu tax bu ñu amoon chance yàlla léegi vingt sept victoire. man mun naa la sax ëpp na ko waaye munu mën a xayma parce que bu nekkoon tegoon fay nii euh, décoté samay combat mën naa la ne combat yi lii lii la. te war na ko ëpp combat moom 17 victoires. xoolal jamono yu jamono jamono jooju ñu doon bëree xoolal da ngay saison bi 4 combats. Mhm. ba 3 lan moo doon loolu noonu yi amul làmb amul na tey jii nii ak ak actuellement exporteur amatul. Mhm. amoo waral loolu. loolay problème bi promoteurs yi bëri nañ sponsor amul ah xam nga tey jii làmb la ñu wax ne mooy sooxara waaw ak coow yi am biir làmb ñun ñoo ko ñun ñoo ko war a bañ ñun ñi nga xam mooy acteur acteur principal yi comme ñun mbër yi tey jii nii làmb fi mu toll nga xam ne sponsor ku mel ni sponsor yu mag yi nekkoon fii nii nekkatu fii nga xam ñoo doon jàppal làmb tey moo waraloon ñu doon bëri ñu bëri nekkatu fi kon bu nekkee li am na ñun ñun acteur principal ñoom ñoo war a comprendre mbër bu doon fayee 10 millions la fayee 2 millions sax da nga bëri dina parce que tey jii làmb fi mu toll yow yaa war a sauver làmb ji tey jii promoteur bu am lu ko gënal du tëgg combat diw ak diw ba pare di ci perte tax kon dinay bëgg du ñëwaat waaye promoteur booy seet promoteur boo gis mu dugg combat dugg ci làmb dugg premier premier làmb tëgg tijaan ak diw bu demee làmb ja bu neex bu tijaan andul ñaari supporter bu demee du ñëwaat parce que day perte ay millions lay perte mooy mhm. xanaa am lu ay mbokk mhm. loolu lay wax ji mais ñu bari léegi dafa màgget kenn Tidiane fay léegi fit ba fa nekkoon nekkatu fa dafa tàppet booy ndax boo gisee Tidiane daan ñëw boo ñëwee nga xam ne kii nag mais Tidiane ba woon. Mm-hmm. ak bii différence parce que Tidiane léegi dafa màgget Tidiane léegi dafa tàppet quoi dafa tàppet booy yi ndax booy yi dañoo am allah parce que ba mu ciy tollu dëgg. Mm-hmm. mais léegi Tidiane daal boo gisee de accompagner booy yi ñëw kii noonu est-ce que tamit jaru ndax ñu bari ñu ngi lay ñu ngi jëw benn jëw boo xam te ni Tidiane est que du compétir parce que ñëpp ne da nga mën bëre macha allah mais boo bëggee toog nii tamit est que bu xaw am tamit ak li fi def. xam nga tapet booy moom du su wax tapet booy du wax de man actuellement yi dañ ma war a topp parce que maa topp samay mag dama ne la bi ma bëggee bëggee bëri Ousa dama ko topp. bi ma bëggee bëri pour mu dama ko topp pour bërik moom. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon man def naa sama béy naa sama waar waaye danga naan booy lan moo tax nanguñ laaj tijaar loolay wax ji. mais booy yi ñu ngi laaj. kan ak kan ah booy booy parce que da gis am na mbër yu bari yoo xam te ne tey tey bëri tijaar fierté la nekk fierté la si ñoom parce que tijaar. benn benn la de te ah. benn benn googu noonu damaa bëgg mu leer. Hmm. man du ma jël mbër moo xam deful dara de. Hmm. sama kare du ma ko asaaloo de na leer mbër mu tax ñuy wax ñoo tax ñuy wax waaye bëri benn combat comme jamono ji leen li bëre benn combat ñaari combat ñu tëggal la grand combat nga ñëw. am sa petit mbooloo am sa petit coow. ñëw ñu naan nañ ko jox Tidiane mi nga xam def na fi ñaata at. bëre fi ay combat bi bëri ay victoire ngay bëre boo yooyu noonu. Tidiane taxul bëre ñoom de man mar naan du ma tax naan petit. bër mu tax ñuy wax moo tax ñuy wax bër moo xam dafa ràññee bëre. comme ñan ñan ñëw booy rek. kon ñan booy nga bëgg a may. yi tax ñuy wax. booy yi tax ñuy wax man mayu ma chance kenn de. dama ah. bëgg mu leer man mayu ma chance kenn man damay préparer damay bëri na leer nag booy bu bëgg pour combat du yomb de. Ah, kon gars na naan da ngaa màgget ak amoo fit bi yëpp fi. xam nga wax sax tàgg sa bopp. dañ ne sax baaxut mbaa bu yàggee da ngay juum. mais est-ce que Tidiane ba woon ba léegi daal déggu li ma la man damay wax ne sax dama ko am habitude di ko wax su ma demee bañ naan ma jugal nga dem entraînement ma tekk sama ngemb kenn du ma ko wax. ba may dugg ci làmb nekk ma mbër moo xam da ngay tourné ñu ne la mbër maa nga nële. déedéet man maa am amour bi dugg ci làmb yàlla moom ma dëxëñ ci li ma dëxëñ moom mooy xam mu bëre bi yooyu noonu te dañ ciy taxale rek ngëm-ngëm bi nag yàlla moo daf ñu gëm ko rek affaire noonu mais bu ma toogee bañ daan ma demal bëre ji mbaa demal demal entraînement yi non ma bàyyi làmb kenn du ma ko wax. Mm-hmm. entraînement pour muy leer man duñ ma fa jiitu mm-hmm. te man maa fay mujj man nag loolu damay bàyyi ñu waxal ma ko parce que jor ma koy wax mm-hmm. waaye dama nga laaj ci booy écrit bi yëpp. ñi nga xam ñoo nekk si mbaa nga laaj leen koo ci tàggat nga ne leen tijaan la nga xam si ñoom wax nga laaj leen xam nga seere sa bopp sax bu yàggee da ngay da ngay da ngay jaay waaye aw ma jot boobu sax wax dëgg yàlla parce que entraînement moom du ma ko caaxaane même bu dara da ngay am sa santé dara sax da am sa santé boobu mais làmb moom maa ko bëggal sama bopp waaw. instant bi foo toll ñu bari ne tijaan amatul dara lu mu prouvé carrière bi foo toll da ngay may booy seen chance. pour lancer waat carrière bi yow de instant xam nga sànq boo déggee mayal doo may parce que dégg dañuy dégg da ngay dégg booy boo ren damay maye chance rek. ñoxor njaay bu jóg na day nay jël tijaan. Hmm. su ko dee coow lu bëri. soo déggee maanaam mayuma benn sens hmm. da ngay def lu tax may wax moo tax may bëri yow waaye bëriwoo benn combat am na bëri mbooy yoo xam ne ñu ngi bëri boo gisee xam ne carrément ñii ñu ngi bëri ay macha allah te ñooñu seen tijaan neex na. Hmm. te ñooñu sax boo leen waxee tijaan est-ce que dinañ ko jël. loolu laay wax waaw. te yaa neexut a ñeme de coow la fi mu nekk nii rek waaw mbaa boo amee mbokk nañ la moytu waaw. côté mystique bi Tidiane Faye ñu gis ni macha allah séeréer nga da nga mystique woon mais Tidiane daal mystique bi lépp xor sa xorom daal lépp wàññeeku lépp da ngay magal quoi da ngay magal ndax parce que xam nga booy sax boo xëyee ñoo Tidiane mag la ndax da koy kii ndax jël sa combat ak tonnerre bi passé xam nga Tidiane gars yi naan ñi xaar Tidiane ñu gis. Tidiane fi nga mujjee. tonnerre tonnerre est-ce que njëkkumaa ji bëri. est-ce que tonnerre njëkkumaa bëri. ah mais yéen ñaar da ngeen a bokk da ngeen <laughs> da ngeen a nekkoon foo xam te yéen ñaar guddi gu bër sëtagul. non du guddi gu bër sëtagul lamb moo demee noonu. Mhm. moom du guddi gu bër sëtagul moom si ñaata victoire ñaata defe la toog. mais yéen ñaar daal soreewoo de. waaw noonu lamb la nag xam nga lamb. Mhm. xam nga lamb tey jii nii mooy li ma la wax rek. wax sa ay bu morom. Mhm. man Tidiane du ko def. déedéet wax dëgg yàlla parce que comme li ma la expliqué rek. tey ñooy dem bay tuddante doom ñu ñooy ñu ñooy toogee ëllëg mm-hmm. waaye nag tey dara jaralu ma tey ji may wax ne diw lii ak lii ak lii bu ëllëgee ñu ma gis la di sëgg mm-hmm. kon dara jaralu ma mm-hmm. mais dama bëgg a xamal ne carrément gi nga tijaan mi nga xamoon démb moo fi nekk tey xam lépp nga fi lépp fi macha allah amul différence lépp lu doon def ñu ngi koy def muy ci wàllu entraînement lépp li des nag suñu borom la du ñun suñu borom la jaam day nangu dogal yàlla mooy defee noonu nguuru yàlla rek moo dul jeex bu yàlla rek moo jeex bu nag mbir ñëwee nag si mbir si si jaamam da koy nangu rek man ñi ma doon daan gënuma leen ah te damaa toog fii sept ans di tegal ay victoire ñëpp tijaan tijaan tijaan ñi ma daan gënuma leen te ay seen doon génn seen waajur ñaanal talal loxo ñaanal leen ñu ñëw ma daal la façon jël bu ne la leen daan ba ngeen tuddi yéen ngeen tuddi ma professeur. Ah, <laughs> waaw léegi kon man def ma ko kon kon suñu suñu borom moo ko defoon. Ah. xam nga am na loo xam ne bu ko suñu borom defee da ngay gëm ni moom moo ko def rek. waaye du kenn daal. na nga gisee làmb. waaw instant bi gis na bari na coow. gars yi ne promoteurs yi ñoo ko yàq ñii ne mbër yi eh, ñii ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxkat yi ñoo yàq làmb mais yow nan nga gisee làmb en personne yow làmb bi nga daan gis ak léegi ban différence la am. waaw ca fu bëri coow te làmb ku ne xam na ne coow la baaxoo. dafa bari coow waaye di wax nii lii yëpp waaye làmb coow la baaxoo làmb bu ma xamee làmb ba léegi ma dugg ci ba léegi ci coow la dëkk te coow du ci dañ mënut te ñàkk mais dafa am loo xamante ne tey jii li ma la sànq moo ci nekk rek ñun acteur principal nañ bañ mujjee puso mu réer ma suñuy bàyyi dañ ko yoroon suñuy mag ñëw yor ko tey ñun ñu yor ko tey jii boo demee ci benn mbëru ñu lay fay cinquante millions te mu leer la ne cent millions nga doon jar. bu ñu la fay cinquante millions xam nga li tax ñu jox la fay la cinquante millions ndax sponsor ba doon fay cent millions fay cinquante millions nekkatu fa kon bu la promoteur fay cinquante millions jël nga bëri ji tam pour bëgg a defar làmb waaye tey jii bul toog fi nga toog rek ne cent millions lay jar cent millions lay jar loolu defarul làmb loolu tax may wax ne chaque jour ñun ñi nga xam ne acteur principal ñoom moo defar làmb ñoo ko moo defar làmb làmb nag coow lu bëri na ci ñi naan promoteur ñi naan mbëri la. ñi naan waxkat yi waxkat yi ñooñu ñëpp ñoo ànd nga ñu bokk teen dañuy laxasooy goj loolu da ñàkk mais waxtaan rek lañu ci def CNG su ñun la bekk ñun si ñoom lañ bokk amateurs yi noonu promoteurs yi noonu ñun ñooy ñëw kenn mënul dem bàyyi sa morom CNG mënul dem bàyyi mbër yi mbër yi mënuñ dem bàyyi CNG CNG mënul dem bàyyi amateurs yi mënuñ dem bàyyi promoteurs yi mënut nekk kon ñun ñu bokk foofu noonu faw ñu toog teg ko ci taabal ñu waxtaane ko waaw man loolu rek laa ciy wax parce que luñ bokk la comme nen buñ ñu jox la mënuñ ko baxal kenn dong lekk ko <laughs> nañ ko may rek ku ne jàpp si am déet. na solo waaw loolu la ñu ñaan rek. écurie Lansar da ngeen léegi doxatoo leen. sant yàlla rek. ñu gis ni Tidiane Faye la woon ah. ay ñoom nees ay fëgala site coinche mais ñu gis ne léegi yéen. wax dëgg yàlla du mën a doxalee cent pour cent quoi mais dafa yéen daal dangeen ngeen a xaw a xeewi gis rek ñees fëgg la dafa daanu supp waa super étoile ay ñoom senteel ah ay Matar Gueye ah ay Matar Gueye Quench ñu koy nuyu au passage sama xarit moo dafa bëgg li mu def ba léegi moom ak Diène Kairé xam nga. làmb rek. comprendre nga euh, mbaam ak papa saw dañ doon xaar dañ ko doon xaar mais lan sar yi da ngeen xew lan mooy seen problème ban na ngeen meloon. kon xanaa lam moo xewi. non parce que su léegi lan mooy seen problème quoi xam <laughs> euh, xam naa dina ma kii mais lan sar ma ne ma ne kon xanaa lam moo ah, la. ah damay laaj yow mbër yi lu ñu am am nañ ko di bu dee mbër muy coow bu ñu coow rek. Mhm. am na fi. non xam nga mbër waxuma mbër bi. xam nga xam nga daa am loo xamante ne. soxna si. Mhm. dafa am loo xamante ne yàlla moo ko def. max da ngay dégg ma ne man bëgg xëccew ma woon première. Mhm. waaye damaa bëgg fu ñu ma li fu ñu limee yeneen écrit lim ma fu ñu limee benn ñaar dañ ñett lamsaar. Mhm. te ñun ñoom bu dee judd si écrit coow bi ñu am nii tey jii nii am na mbër yoo écrit yoo xam ne judd nañ ko démb. barki démb te amuñ coow loolu noonu. mais seen kii dafa wàññeeku. non sant yàlla ñaata at la dëkk euh, Fass de. mais mais dañoo gis xaaj yëpp dañoo tukki. damay laaj laa la wax. ñaata at la fas dem laal. ah Fass de moom mooy Pikine mbooloo ñaata at la def. loolu laay laaj ah. écrit eh, nu ñu ko waxee bu géej waay bee nu mu tudd sax eh, ah non du ma wakiri waalo ñaata at la def. écrit caare bi ñaata at la def yàgg nañ. ñun 2004 lañ sox 2005 lañ sosu. 2005 bii lañ sosu ñaata at la ñaata at lañ tegale fii di jël pay ñan yan booy ñoo ko doon jël. ay gi nii am nañ ay révélation bu baax lamsaar fi mu booy lim écrit yi ëpp révélation lam na nga ciy lim lamsaar da mhm, nga ciy lim lamsaar kon mënuñ mënoo mënoo ko ci génne mënoo nekk dañoo xew yi déedéet xew yi comme man lamb moo am problème problème bi mu am tey jii nii bu nekkoon ne yàlla dogal na problème bi dañ kon ngay xam ne carrément ñun fañ nekkoon bu léegi nekk fa mais ñun dañoo am ay révélation mhm. tey boo limee Maama Lamine lim Quench mhm. sita waxuñ ko ay euh, laal fii abu ñaasa fii booy yu bari am na waaw ay li no booy Liss Ndiago nekku fi sax no moom mi ngi fee mi jàmm gën la nekk jàmm gën la nekk waaw moom nekku fi waaw muy nekk booy yu bari duñ xaaj yi am na boo yoo xam ne ñi ngi fii génnaguñ sax mais yéen a ngi leen sant bu baax ak booy yu mbër mbër comme sama booy bi la doon wax léegi rek rek. yam booy yu bari wax dëgg yàlla. mais noo gisee instant bi booy Tidiane yow ñëpp xam nañ ni bërikat ka booy yi révélation yi ñëw nañ nga leen gisee tijaan bu ndaw est que yaa ngi gis benn tijaan bu ndaw buy feeñ mën nañoo wax ni comme ci généraliser rek est-ce que am na mbër moo xam te ne koy gis muy bëre ngay sentir ni booy bi kan ni ma fi ni ma démarré woon noonu la démarré. waaw dina jafe nag jamono jii moom mbër day am waaye bërikat du am. lan mooy entre lan mooy différence boobu mbër ak bërikat. Hmm, laaj laaj nga question am sol mbër yi dañ doon euh, bërekat da doon tarbiyu làmb bërekat da doon tarbiyu làmb naanaam da ne tijaan ñu mel ni tijaan ak ñeneen ñi ak ñeneen ak tey ji champion yi nekk ci kaw pour ñu génnee mbër mu mel ni ñoom day jafe xam lu tax tey jii ni lan ñu doon def ci mbaxut amatul fanaan ci mbax bu bersot wecc dem ci bu booy bambara père booy yàlla na ko yàlla yëkkati dëgg yàlla mhm. dem ci mbaxutu père max dem ci mbaxutu père balagay dem parcelle amatul mbapatu séeréer ngay def te yenn booy duñ ci dem boo leen waxee demal sax sa biir sama équipe laa koy commencé. équipe laa koy commencé da waxee dem leen sax mbapatu séeréer waaye gara ah garaawul de bàyyi ñu gérer ko fii rek amee combat dem bëre ji te affaire bi loolu. loo nekkul taalibam doo nekk sëriñam mën ta nekk. làmb il faut nga bi lenn pour mën la fe am leen waaye boo tarbi leen doo ko mën a am. loolu mooy mbër mi. donc mbër mi moo nekk loolu waaye léegi. Euh, bërikat bi moo nekk noonu sax. bërikat waaw waaye bu dee mbër mi da ngay dem saal yenn weñ ba euh, rëy ñëw ci stade sol sa yére yu rafet dem laa mujj bëri sa combat benn combat ñaari combat daan nekk si doom kaas yi ne yegg naa mbër la te doo mbër. bëri na ci làmb ji tey. mooy waral da ngay gis ku départ ba ci kaw nga yeneen kii am nañ ci moom yaakaar. nga dem mu dajeeg mbëri bërikat. dem bëri dajeeg bërikat salaamaaleykum maaleykum salaam moon ko yoon léegi nag dafa jafe écrit boo lim fi ne nii boo boo demee si écrit yëpp boo koy lim fu noonu benn la fay doon mbaa sax mboñ fa am léegi loolu moo am bëri léegi si làmb yi mm. kon mbër sax bokkuñu sax léegi nag loolu moo bëri mbër mi dafa bëri léegi ay mbër laa nii dafa bëri. Mm-hmm. ndax tey jii boo demee géej gi day fees dem teere yi day fees del ku romb macha nga ne ah kii de champion waaye est-ce que la wax si mbër ma nga ca moom lay problème bi Tidiane mayoo kenn chance ba pare laajoo kenn mais dafa am booy yoo xam te ne dañoo nekk ci kaw mën nañoo wax ne instant bi mën nañoo wax ne boo doon tuddee rek ñoom ñooy yéeg tey ku ci mel ni mu mujj bu yoof caat bu booy bambara wulli booy yooyu noonu mooy wulli dër booy yooyu tey est-ce que tey ku si ñëw ak double moteur Tidiane est-ce que tey buñ ñëwee ñu proposé la boo yooyu noonu di nga leen may chance di nga bëri ak ñoom di jàpp. Ah, na mën a nekk de waaye làmb ji de liggéey rek mooy tax a fay mm-hmm. Mm-hmm. mais ku la seet ci booy yooyu nga bëri ak ñoom. pare nañ pour booy yi ñi nga xam ne tax nañu wax. Mm-hmm. waaye tey ji nii booy yoo xam ne bëriwuñ defuñ dara. xëy suba tey rek bëri si ñaari combat ñetti combat ñëw yegg donkaas non du ma leen jël. moom benn booy boo xamante ni Jackson Junior xam nga te bëriwoon ak Pam non xaw ma dëgg yàlla. Ah, laaj xanaa. Ah? laaj xanaa. <laughs> Tidiane booy yi booy yi ba loolu ba dul. non man damaa xam ne xamul. loolu lay problème bi xam nga ay Jackson. man wax dëgg yàlla xaw ma ko. loolu problème bi quoi tey tey bu mu nekkan xam nga boo waxee bu duub moto ñëpp xam nañ ko. boo waxee mode ñëpp xam nañ ko parce que na presque plus de six combat mbaa sept combat. bëri na combat ay grand combat ba rek kii nii. waaye tey jii nii catégorie bi ñu toll mm, ma ko nag. daal maa ngi fi mm-hmm. am estaf. Hmm. topp seet di leen déglu ñoom xam nañ ñi ma war a bëril. Hmm. te xam nañ ne carrément ne ñii laa war a bëril. Hmm. mar nag loolu laay wax li la waxoon léegi rek mar naan mu dama tax naan peut-être. daa am loo xam ne sama carrière la tracé naa ko ba yegg si fii nii. dama ko yàq. boo nekkul woon mbër lan ngay doon. non yàlla de mbër la ma def. mais boo nekkul woon mbër lan ngay doon. ah yàlla de mbër la ma def xaw ma nag la ma def waaye en tout moo la moom. Uh-huh. waaw sant mm-hmm. bu ñu ngi yëngu ci bagage mm-hmm. a xam mm-hmm. ngi si jàmm bu baax di ah, ko yàlla dogalee rek. pare ba neex man rek. <laughs> Tidiane liñ desewoon ci waxtu jeex na. Ah, xam naa xamoon naa loolu di ko ci digal waxoon <laughs> naa la bu nga ko digal. <laughs> waaye sant yàlla rek xam nga bu baax a baax ndax li ñu wax rek yow bu ñu toogee yow ndax dëgg yàlla duñu du ñu mën a kii parce que yow suñu waay nga te dañ baax a baax nan la kontaanee nañ bu baax a baax a baax dëgg yàlla kontaan nañ daal loolu rek lañ <laughs> yàlla rek xam nga daam loo xam mënuñu la ko bañal wax dëgg yàlla tax dafa yàgg. Mm-hmm. du tey démb la quoi. dëgg wax dëgg yàlla tey wax dëgg yàlla comme ni suñ père Max wax rek boo gërmul foog nga xarab mm-hmm. te ñun ñaar ñaanuñu yàlla di xarab wax dëgg yàlla kon dañuy sant rek lu yàgg dëgg la di nuyu wax dëgg yàlla suñ kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ku mel ni père Max père Alioune ki nga xam ne moo ñu dalal ni muy suñu président équipe di Cheikh Niang père Moussa entraîneur wax dëgg yàlla sama booy yi nga xam ñoo nekk ci équipe bi ñëpp daal maa ngi siyaare bu baax a baax a baax a baax di sant suma yaay ak suma papa bu baax a baax a baax baax di sant nag suma sëriñ. di ko ñaanal bu baax yàlla na yàlla guddal fanam bu baax a baax a baax sëriñ sëriñ Abbas ibnu sëriñ Bas Antaña ibnu borom daaru ma leen di siyaare bu baax di siyaare waa xalifa daaru Muxti di sëriñ Abbas bu mag ma ko siyaare bu baax di ñaan nag mbas mi yi nga xam ne moo nekk si réew yàlla ko suñu borom jëlee waaw loolu lañuy ñaan daal mhm. waaw amoo leen looy laajaat <laughs> Tidiane waaye ma à sa fin ah. di ko béggewaat bu baax a baax moom Tidiane Faye de professeur de Lansar noonu lañ ko tuddee mu nekk koo xamante ni nag macha allah nee naa waxtaan ak moom day neex parce que mbër la euh, mbër la ba pare daal li mu def ci làmb macha allah ndax nee naa leen 2003 2004 la dugg ci làmb dem 27 combats euh, am 17 victoire 10 défaites kon nag loolu nekk loo xamante ni lu yomb la ñu koy bu baax a baax a baax naan ndax boo gisee waxtaan bi sax tey gis nga ruubee ko def moo ko dara sax bett naa ko tey dama koo bett atijaan ah, tey dama laa bett. non tey nag maa bett tey dara parce que tamit euh, wax dëgg yàlla am na ñeen ñoom. non c'est que nag attention am na ñoo xam duñ la jël de boo wooy wooyee ne maa ngi ñëw seen kër duñ fa duñ la jël de dañ la jël dañ la jël xaw ma non daañu ko xamatu ku la yedd temps yi. non nee damaa sippi. <laughs> non dama yaakaar est-ce que est-ce Max du lay woo di wax ak yow nga wàññi. non non léegi damaa sippi waaye ñoom dañ ciy jàpp bu baax a baax di ko remercier waat ndeysaan bu baax chaque jour nii ñun ak ñoom ñoo fara ñun ak bëri benn lañ parce que ñoom ñoo ñu ubbil seen kanam xam nga ñuy kaf ak ñoom di reetaan ñoom di ko bégee moom Tidiane di ko ñaanal moo xam ne bëgg ci carrière am yal na ko yàlla defal jàmm yàlla àggalil ko carrière am ci barki kon ni ma koy waxee rek te bu ma tayee di ko wax muy sama séeréer bu nice Bassirou Diouf di la ñaanal jàmm yow yàlla na sa jàmm yàgg ndax su ma naraa acca rek ngeen acca tey rek séeréer yi ñoo ma sékk mais nag wax dëgg yàlla man maay princesse bi maay tukkuleer lekk lekk rek la mën na xam naa non Ndioufène waaw waaw Ndioufène te séeréer yem sekk ah, di bëggewaat nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko tàmm woon li may wax rek nee naa leen yéen lépp loo bëgg dañ ciy dox yéen yéen yéenee lépp Tidiane fay ngeen ma santoon wax dëgg yàlla ma contacté ko mu yombal ma ko loolu ma indil leen ko di leen bëggee di leen bu baax a baax a baax naan leen incha allah wasaare mi ngi ñëw ak yeneen di yeneen di concept yeneen di émission yoo xamante ne dañuy baj na ngeen piraat mais ñu ne yéen nee naa leen commencé guñu dañuy fo rek mais après lépp dina kii Père Max maa ngi lay béggee émission bi yow laa ko may ndax yow moom xam nga ma xam yow suma papa nga suma xarit nga suma lépp nga ndax danga si jàpp bu baax a baax di béggee nag ulukuma képp koo xamante ne rek yaa ngi safoo Fatima di jox ñëpp jig daje ah kon niñ koy refee à chaque fois rek beneen mbër la ñuy seeti wala amateur wala ñu seeti arbitre wala képp koo xamante ne rek soxla ngeen ko boo leen cliquer rek wax ñu ñu dem seeti ko maag Basirou parce que lépp lu bëgg rek loolu la ñuy def Fatima kese Wassare kese Basirou kese